leen bu baax a baax jox leen seen wàccuwaay ak kontaanat ci dialogue yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen bu mag bi nga xamante ni moo di xaas TV di ziar bu a baax la sama caméraman Ibrahima nag yow nag yow laa àndalaat ànd ak yow nag ci xaas TV fas yéene waxtaan ak ki nga xamante moo di Mama Africa moom mi nga xamante moo fi euh, bay li nga xamante moo di euh, ay pombiteer ay soble ay carotte waaye nag ren dafa am yu bees tàq xamante ni euh, tamit mi ngi koy bay mu mooy lu jëm ci wàllu laurier ndax ñu bëri dañ ne woon laurier euh, du du euh, sax fi nga xamante ni moo di Sénégal waaye tamit mu boole ci li nga xamante moo di garab bi nga xam ne day faj corona loolee lépp tey danañ ko waxtaanee ci li nga xamante ni moo di bile reportage ay ta Ibrahima danga may daal topp ma daal di dem ci ki nga xam ne moo di Mama Africa fas yi ne sëkk ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan bi waxtaan bu jëm ci li nga xamante ni moo di wàllum garab Mama maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax waaw maa ngi lay fay di la delloo mhm. ngeen def ça va alhamdulilah. maman ñëwoon nañ fi ñëwaat fi li waral ñëwaat bi mooy danga ñoo doggali ndax dama fee dégg yu bees tàkk tax tey ma taal sama oto ànd ak samay caméraman yu baax yi fas yéene sekk ak yow waxtaan si li bees li nga xamante ne moo fi am. waaw lu bees lu fi am de turkima am na fi turkima épice la mooy baasu kari xam nga yow toggkat nga mhm. ñii togg itam xam nañu lan mooy kari mhm. ak kii bi nu mu tëddati laurier am na nañu fu ici eh, kii sucre naturel stevia waaw. lépp eh, ñëwoon naa fi nga wax ma li nga xamante ni moom nga fi def ci ay at ci liggéey dama bëgg nga waxaat ko pour internet yi nga xamante ni ñoom ñuy seetaan ñoo ñuy seetaan ñu gën a xam eh, maman ñaata at la def ci liggéey bi. liggéey bi da ba mu dooree rek laa ko door 99 la dugg Sénégal defe naa waxoon naa leen ko vingt 99 ba léegi nii maa ngi ci ndax dama doon def ay recherche yàlla def lii ñëw. nekk culture euh, mbéy boo xam ne hors sol la mooy amul suuf mbéy bi li nga gis fii yëpp amul suuf donc di dunde oligo élément mooy ferñeent yi nga xam ne yow boo ci manqué la rek nga feebar waaw waaw tey jii nga xamante ni moom ngay def muy métier mi loo jàngale wala lu nekk ci yow la ngay nga génne ko lii moom dama koy jàngale ndax xam nga lu tax fii nii centre de formation la ñu njëkkee CFD centre de formation et de démonstration léegi nag fii nii gis nga espace bi patrimoine la ñun ñëpp ñoo ko bokkoo ñu nekk ma def ko nag centre de formation de démonstration de de recherche et de reproduction de graines mooy centre bi dinañ former dinañ wone fo bi naka la technique bi yëpp dinañ leen ko won mhm. ba pare dañuy gëstu li ñuy gëstu yëpp moo nekk li nga xamante ne moom ngeen gis nii di essayer pomme essayer nañ ko fi ba mu baax boobu ñëpp jaaxle nañ ci ba fii ma taxaw te yëpp kàttanu yàlla la laurier ngi nii ak leneen ak leneen nga xam ne euh, graine bu fi doom bu fi dugg nag graine bu fi dugg dootoo fi génn ndax dañ lay adopté daal di la reproduire mhm. salaat yaa nga ne di ngeen gis yi ma jële woon itali Italie 2008 ba léegi ñu ngi fi ndax bu ñu kiyee dañuy bàyyi ñaar wala ñett ñu focci defaat ay doom ñu jiwaat donc loolu moo nekk li nga xam ne moo nekk fii nag moo nekk sama slogan bi nga xam ne moom laa lancé mhm. kër gu nekk war a am euh, micro jardin mhm. ndax ndool bi ak xiif bi jóge fi léegi bu ko defee famille bu nekk aussi jël jël sa bopp en charge mhm. ñu bañati vraiment jéegaani lenn ñu góor góorgóorlu rek ak xale yi nga xamante ne ñoom ñëw nañu pour jàng exemple baa ngi nii kii nii kii nii mu ngi nii dafa jàng alxuraanam ba wàcce di jàng école am léegi nag papaam ne da koy yóbbu mu ne déet li mama Africa di def laa bëgg a def def ko fii ci sama réew kontaan naa ci ñoom kontaan naa ci ñoom torop ndax xale yi am na ñaari étudiante ñu fi jóge ñoom itam la même chose léegi nag loolu moo tax nag. mooy nañoo xam keroog ba ngay voyage di dem fi nga xamante ni moo di Italie li ni moo la yóbbu wala dafa am yeneen jéego yoo xam ne moom nga fa. dañ ma invité woon journée mondiale de l' alimentation en 2008 ndax dafa fekkoon projet bi ñuy wax Dakar Milan moom la ñu njëkkee léegi nag eh, ñoom bi ñu bi ñu ñëwee visité maire Milan di ngeen gis photo yo fale mhm. ñëw visité daal di nag bi may wax duggee nag ci explication yi nag après ba ñëw ba ci basilique. mu ne ma tu seras parmi nous tu es invité à la journée mondiale de l'alimentation qu'on va organiser en moyen de dix jours mooy nee na dañuy organiser journée mondiale de l'alimentation moyen de dix jours invité nañ ma ba may dem itam dañu ma ne sujet bi mooy la femme et l'alimentation dans l'histoire et la femme et l'alimentation dans l'émergence actuelle mu ne jigéen ak lekk ci ci histoire ci ci ci maam ya ak jigéen ak lekk ak ak léegi nii ba man da leen tontoo nag dama leen ne fii nii ñu fi nekk ñëpp ci saal bi fekk jox naa leen seede ñu seetaan bu baax ba gis li may wax lan la ndax seede bi trente minutes rek la man j'avais deux heures de temps ñii ay 15 minutes ñii ay mais man deux heures de temps ndax li ma fa yóbbu vraiment daf leen a gën a intéressé léegi nag bi ñu defee noonu ma pour tontu leen ma ne leen kan fii ci saal bi ñi fi nekk ñëpp yaa juddu te jaaruloo ci ween bi ci nampal soow ñu ne ma amul góor ak jigéen ma ne ko loolu moo waral ma ne leen jigéen dès le berceau moom mooy responsable alimentation dès le berceau ma ne ko mais après le sevrage bu xale bi feree boo nampee ba mu fer léegi nag euh, micro jardin mooy ñëw complété ak ces oligo éléments ma ne ko loolu mooy la femme avec l' émergence actuelle ndax lii mën nga ko def sa kër mën nga taal sa cin sax ñëw na damay roose fekk coppati nga lu nekk nga def ci sa cin épices yëpp ñu ngi fi. Euh, yi nga xamante ñoom ngay jiwee fan lay jóge. yi graines yi moom laa la njëkkee léegi grande bu jóge bitim réew ñëw wala ma jënd ko fii Tropica Sem bu ma ko jëlee dama koy reproduire dama koy reproduir mu fekk si ñun li ñu am ci suñu cosaan fii waaw. d'accord mais euh, nga xamante ni euh, euh, man xam nga bu ma la nee bio. bio rek benn jour peut-être dinañu dem faram-fàccee loolu mooy lu naturel oligo élément rek lay dunde man pour man mooy calcium fer magnésium loolu mooy li nga xamante ne nit ñi léeg-léeg sax dañuy naan moo loolu nga xam ne ay produits chimiques la nangam sàngam y a organique chimie bi nga xam ne destinée pour l'organisme et y la chimie analytique calcium boo demee pharmacie sa yax buy metti ñu bindal la calcium calcibronate a ngi foofu nga anémie fer lañ lay bindal feer a ngi ci biir yooyu yooyu l'ensemble de ces produit ñooy def li nga xamante ne mooy dundal plante yi ba pare du am suuf xollitu gerte mbojjitu ceeb gravier moom lañ ciy def wala latérite gis nañ lépp loo xam ne bay nga ko ci kaw taabal nga ko bayee loolu naka la mën a nekk ah mu ngi nii ni mu mën a nekk yëpp mooy boo boo boo kii nga ñëw ma formé la mën na nekk parce que xam nga lii dafa yéem a daal. nga ma wax lan a bay lépp. même ceeb même soble. bële baa nga ne. ceeb baa ngi fee. Mhm. soble amul lu ñu fi mënul a bay lépp bay nañ ko fi photo yaa nga ne di ngeen gis légumes yëpp bay nañ leen. maa ngi ci tàmbali bi ngay wax ni euh, turkima tamit am na fi. turkima waaw fa ma ko ute semence bi bat buture la dañ ma indi loon benn racine bi racine bu ndaw moom laa moom laa taxal ak mu ñëw. mais euh, suufu Sénégal li ñuy faral di wax ni euh, jàpp ñu nga créé ci loolu suufu Sénégal ñu ne ñu ne lan. liñ ci mën a bay mu nangu te yow dañu gis ni bay nga ci lépp. xam nga lu ma lay yëgal gis nga ba ma demee université Milan bi ma leen ne. jaay leen ma butiiru laurier ak melis xam nga lu ma wax lii du baax foofu ndax plante glaciale la gra eh, eh, ci glace bi lay dund te yéen foofu da ngeen a am naaj ma ne ko man li ma jàng d'après man li ma jàng toute plante verte et une plante à la chlorophylle et l'assimilation se fait par les rayons solaires ñu ne ma tu as parfaitement raison ma ne ko la exemple vous avez mi des serres ay serres la ñu def saxal ci ay làmp ñu tiim garab yi léegi nag ma ne ko lu tax ngeen def li làmp yi pour lan pour ngeen euh, ngeen am les rayons artificiels parce que loolu c'est artificiel ma ne ko nous ici au Sénégal en Afrique toute entière on na 24 heures sur 24 le soleil mu ne ma tu parfaitement raison xam nga borom xam-xam rek a neex a waxal ba ma ko waxee paa bi dafa kontaan mu ne ma tu as parfaitement raison maa fii léegi nag ba ma ñëwee. indi ko xoolal laurier dañ ne woon du fi baax lii du laurier lépp nga fi melis bi ñu ne du fi baax lii du melis. léegi maman li ma bëgg mooy tey nga ñëw dem ci garab yi bu ci nekk nga présenté ma. waaw curcuma bi kaay ma présenté la curcuma bi. ñëw na ñu coupé ah. mooy lii mooy curcuma. d'accord curcuma mooy njariñam. kii nii épice la day togg te mooy base kari comme yaa ngi togg. kari mhm. mooy mooy curcuma mu ngi ni d'accord mais dañuy faral di ni euh, tey jii bu jigéen buy diwu nga. curcuma bi soo koy jël euh, sa teint dafay jaune dañ koy faral di dégg na ci. a salan day jaune. su fekkee da tey maanaam yaram. waaw nee nañu bi soo ko boole ak yenn ci ay produits. waaw mën na laa jox teint bi nga bëgg. pour ñi nga xam ne dañuy xeesal. Mhm. xam nga xeesal nag man maa jiitu ci ñu ko contrer. Mhm. yàlla daf la sàkk ne ñuulal daf la ñuul wala nga xees wala nga xeere mhm. yow nga ne nag léegi da ngay dindi loolu kooku d'accorduma ci parce que pot bi gis nga ñoom bi nii lii tegu ci kaw bu dañee beneen pot bi xam nga dafa dafa xees ndax lii ngeen la ñuy effacer pour jot li xees li loolu aussi boo ko jotee xam nga day effacer waat mu mu mu jotaat beneen pot bi bu ko defee yow boo feebaree ñaanuñu ko yàlla de kenn du la ñemee piqûre mm-hmm. waaw ndax man je suis nag préparatrice en pharmacie de profession kii turkiment daal li ma ci xam booy togg da ngay jël am na épice bu may defar damay jël ci feuilles yi boole racines yi ci seen bopp moom la ñuy jël def ko poudre racine bi moom la ñuy jël wol ko poudre boole ko ak yeneen yeneen mu nekk kari ndax kari ensemble ay ay ay kii la ay épices. ana ana leneen li ci bees mooy maanaam li nga xamante di mooy jàngoro corona gi mën na koo saafara. loolu de balaa nga ñëw ci li loolu balaa ma ciy sore mhm. ndax xam nga bii ñun ñoo ko moom kinin la fees anti anti anti défébrile la léegi nii dangay gis bu bu fekkoon ne ñi ma doon filmer keroog kooku wax na ne moom bu ñu bu ñu feebaroon bu ñu nekkee xale sa yaram bu tàngee dañuy jël feuilles yi rek nga musóor musóor la ko takkal la ko nii dix minutes ak fièvre bi day dem mooy kiini te kinin la dina faj sibiru dina faj daal yàlla daal moo xam ndax yàlla mooy faj nag xam nga yàlla moo sàkk garab yi mais yàlla ci boppam mooy faj bu la ne woon tey xobu xobu kii bi tey boo ko utiliser tey ci corona dina wér day wer bii nag bii nag moo waaw waaw bii nag kii nag kii nag mooy kii bi euh, waaw ñu ñu ah. ñu kaani salaat bi nag gis ngeen ko ni am na yoo xam ne ñu ngi ci boudin yi gis nga. du gis nga xam nga kii nii ay cinq jours ça dépend ci ni nga koy toppatoo rek cinq jours moo tax nag fii nii mbay bi ñuy béy fii amul saison amul contre kii amul naan contre saison ñun toute saison la. Artemisia baa ngoog kii mooy Artemisia kii nag yàgg na fii ci man def na fi plus de cinq an balaa corona ndax man damay faral comme ni ma la ne centre de recherche la léegi nii damay gëstu di xool di xool plante yi bu ci nekk lan lan mooy sa vertu lan lan mooy sa lan mooy sa vertu lan nga am comme principe actif d'abord principe active boo ko xamee di nga mën a xam euh, vertu thérapeutique yi li muy faj li muy kii ak yëpp kinin am na ci nee naa la mbantamaare bii nag mooy sama garab man séréer laa te moom laa mos di suñu maam yi moom la mos di faje fii ba Casamance ko ci laaj mbantamaare turam am na turam boo xam ne aljannaawu la tudd moom mbantamaare aljannaaw donc loolu la fii nii xam nga polystyrène mm-hmm. récupération yi mm-hmm. xam nga pneu yi dañ ko doon lakk muy polluer la nature mm-hmm. léegi ana pneu léegi mën a too ko am dañ koy jaay xale yi da ngay gis kuy dawal pneu eh jaay ma pneu bi vingt cinq mu ngi nii tey dañ ko valoriser dootul salteel ba pare dootul polluer la nature ndax bi may ñëw fii dañu ne woon moo légumes yi nar a nekk foofu daal kenn du ko lekk ndax pollution yi oto yeeg yooyu ñàkk xam ne naa la la pollution la photosynthèse de la pollution et la plante plante bi da koy absorber pollution bi da koy absorber ci biiram transformer ko oxygène delloo ñu ko moo tax fii ngeen dugg nii du gis ngeen masque yi dañ nañ parce que air pur ngeen di kii léegi loolu moo waral ma ne ko man comme ñun oxygène la ñu am ñun de trop moom la ñuy dégager soxla astafirullah ñun carbon carbon la ñu am pour di ko dégager plante bi carbone la soxla léegi nag moom moom aussi oxygène la am li li li li ci moom moom la ñuy jox ñun ñu jox ko carbon moo tax ma naan c'est comme le mari et la femme kii day indi lii kii indi lii ñu ngi nii bu ñu juree doom xam nga lu muy nekk mhm. bon santé waaw euh, kii origan la kii origan origan la épice la bu neex sax waaw basilic moom kenn du ko laaj tey xam ngeen ko léegi nag yi tomate yi moom gis nga yi tomate yi moom dafa sevrer day day tontooraat boo witee ba mu jeex rek mm-hmm. mu ñëwaat léegi estavial bi kii ji njeer la gingembre njeer mm-hmm. kii nii aussi kii la euh, nu mu tuddati cerise xam nga yéen li ngeen xam ci ci cerise mooy bu bu bu bi. bii nag bu xonq bi la. rouge bu vert bi rek ngeen xam man nag doom bi rek laa amoon ji ko mun def ni te day jur day jur sax de mu commencé waat na ni jinjeer baa ngi ni waaw baa ngi nii bii jinjeer la bii jinjeer la. ñu euh, euh, kii moom dafa juróon ba ñor. ñor xom kii mooy figuier ak garabu fuddan xam nga ñun fii nii dañu bëgg a plante yi nga xam ne maam yee ko moomoon ñu bëgg a dem disparaître loolu ñu ne déedéet dañu leen di revenir loo ndax gis nga ko ni kii bi nii nu mu tuddati euh, tamarine bi kii bi saf suukar bi la sucre bi mën nga gis Dakar bu am suukar mu ngi nii nag mu ngi commencé jur bu ñoree dinaa la woo nga ñëw it kii nii ngeen di gis nii mooy poftan. bii nii ci poftan. am na ay njëriñ yu bari loo xamante ni. Ah, mu ngoogu nag kii li mu am ci ay njëriñ nag kenn mënu koo xayma ba mu jeex mën ngeen a xool nag tableau yi ngeen xool aussi. waaw ñu dem nga wan ñu euh, bele bi. stevia kii mooy stevia sucre la. boo daggee fii rek def ci sa kaas dootoo def suukar suukar bii la ñuy defaree euh, sucre diabétique ñi nga xam ne dañu jabet bii la ñuy utiliser moom la ñuy jël def ko ay comprimé dañu ko jox kii aussi mën nga ko utiliser comme nii naturel nii nii naturel la ndax da ngay dagg rek def kii nii day law rek day law boo saxalee rek da kii muy muy law gis nga bu juree doom yaa ngi nii doom yaa ngi nii boo wittee nga def nii rek mu sax jeex na boo ko xesee bi am sa kër jeex na léegi euh, yi du nekk nii. jën yaa ngi nii yaa indi li koy tibbee. gis nga kii nii poivron la. am na bu nekk fee nag kaani la bu nekk fa la. jën yi nga doon euh, yar fii ah. jën yaa ngi nii. est-ce que dem ba màgg mhm. day dem ba màgg. d'accord léegi léegi yi nga xamante euh, li nga xamante ñoom ngay yar fii yar bi les six mois ngay récolter. Ah. tous les six mois nga récolter. waaw am na aliment mais nag fii nii comme expérimentation la ñuy def mhm. dañuy naan ndox bi ndox bi da nga ko war a da nga ko war di mhm. ma am nag luy purifier ndox muy moringa les feuilles de moringa gis nga leen ni mhm. ñoom moom ñoom moom la ñuy lekk ndaw yi la gis nga yu mag yi boo laalee rek ñu daw du gis nga jël nga baax na gis nga. mais biir yi la jëm. maanaam yow jën koy jënd da lekk. maanaam da ngay yar li dañuy yar li ñuy lekk xam nga man kese nekkuma. xam nekk doon waaw aca acis la ndiir ndiir yi ngay lekk ndiir moo nekk nii di nii la mel léegi nag bele bi xam nga dafa ñor ba ñu ne récolté ko yaa amuñ ana bele bi ñu récolté kii ceeb baa ngi ni yaay bele bi jéggil nii jox ma bele fi ceeb baa ngi nii gis nga dinañ ko di xam nga lii vrai vrai ceeb la mhm. on a réussir nañu un kilo deux cent au mètre carré ceeb mhm. te ñu ne woon sept cent la mhm. baykat yu mag yi ñoom nee na normalement sept cent la kii mooy blé hmm. blé baa ngi nii Ibrahima blé baa ngi gis nga gis nga doomu blé yaa ngi nii boo boo demee boo demee rek boo boo kiiyee nii boo saxalee rek mu ñëw gis nga lu gis nga xool bële baa ngi ni xam nga vrai bale baa ngi nii kon nag kaani baa ngi ni kaani waaw kañ balaa ñu koy fàtte kaani baa ngi ne mu ngi noonu sa ginnaaw mu ngi ni dafa nekk ci bu kii nag fumier bi gis nga forme bi mm-hmm. dafa naa ne bii mosoo koo gis mm-hmm. mooy une antille mm-hmm. dafa weex xat xat xat ah li muy dunde xam nga oligo élément de dul caaxaan ndax li muy dunde moom la yow nga soxla te léegi loolu loolu li muy dunde yow moom ngay wër moom rek lay dunde moo tax gis nga ko produit yi niroo dé barkaati démb balaa nga may woo witt naa fii benn kii dama ko natt benn nu mu tuddati kanja nii la tool kanja bu dijj boo xam ne que loolu yàlla la gis nga gis nga kii bi beneen variété la xam nga xam nga nit nit koo gis booy gëstu da ngay def lu jëriñ sa réew ndax fi mu nekk nii pesticide du fi jege ndax pesticide day faagaagal nit ñi pesticide esto kii biir bi du ko digérer du ko rejeter bu xesee ba dugg day des ci biir di yàq rek fii nag du laal pesticide cigarette sax kenn du ko fi tux cigarette ndax nicotine bi laay bañ garab yi respirer ko gis nga fi mu nekk nii ñoom dañu nekk à l'aise ñu ngi respirer bu baax air pur di dunde li nga xamante ne moom la ñu war a dunde kon nag léegi loolu mooy mooy mooy mooy affaire bi gis nga ko ni weddi moom gis da cee bekkul ne nañu la secret de Mama Africa essayé kese d'accord léegi xam naa fii la ñuy taxaw daal di eggale li nga xam ne moo di émission bi waaw nga limal ñu li nga xamante ne bu jot na fee nekk te egguñu fa euh, pour sénégalais yi seetaan xam ni am na yeneen yoo xamante ne am nga ko fi euh, être temps bi moo ñu may jeex na jeex na tàkk fi moom mhm. bu ñu koy waxee tey ba ëllëg du jeex mhm. ndax toujours lépp a ngi fi mhm. incha allahu rabbi ndax na nañoo xam euh, carotte yeeg nawe yëpp a ngi fii nii carotte ak nawe carotte yu fële fële fële desoon na karoot navet yu moom dañ ko witt ba mu jeex waaw ay ay quelques karoot après nga jël tableau yi euh, tableau waaw euh, ci table bi lu ci des bareetul sax dañu ko buddi yëpp est-ce que buddi wuñu ko carotte nii Ibrahima. wan ko dafa des dañuy buddi yu mag yi. Mm-hmm. yii nii ñu bàyyi ko mu gën a màgg. lool la mm-hmm. loolu la. Euh, waaw léegi xam naa rek. Euh, fële ne kanja kanja bi. la supame la du xam nga supame dafa am bu violet bu violet. laa woon kanja bu mag a mag gis nga day day amaat fii ak kii rek mu dem ci tableau yi dañuy taxaw fii Ibrahima ñu ñu dem ci tableau yi ah, dem ci tableau yi mhm. liggéey bi tey yomb liggéey bi nga xamante ne moom nga nekk di liggéey liggéey amul bu yomb liggéey benn yomb liggéey liggéey benn yomb ci mhm. li ci nekk mooy xanaa rek nga jiital sa jom waaye nag fi mu nekk nii sama baay daana wax ne sama gid wax ne liggéeyal ba mel ni doo dee ba mukk waaye jullil ba mel ni balaa ngay sëlmal nga jóge fi ñaari baat yooyu bu ñu ko toppee ñun dootuñu am lenn lu ñuy wax Serigne tuuba wax lool ñaari baat yooyu mu wax liggéeyal ba mel ni doo dee ba mukk jullil ba mel ni balaa nga fi sëlmal nga jóge fi yooyu mooy conseil bi nga xam ne bu ñu ko toppee du ñu xalaat lenn lu dul lu baax collection de Mama Africa léegi nag gis ngeen fi les dérivés gis ngeen jën yaa ngi nii ganaar yaa ngi nii ndax fii dañ fi def bag poulailler bag yoo ankay ay lapin la ay lapin ay ginaar gisoo lépp aw ma lu ma yarul aw ma lu yarul gis ko décoration yi ne ko yaa ngi nii gis ngeen ah lapin la waaw agora lapin yu mag lay def kii ganaar la aussi ay bleu d'Hollande dama leen di yar ba ñu def benn bu nekk 7 kilos waaw bleu d'Hollande yi gis nga yii mooy jën yi ah waaw mais garaawul lu ñu jël aliment dinañ rendement bi day ñëw waaw day ñëw kii ni prix master yàlla bii laay laaj Macky Sall na ma ko jox waaw euh, euh, ah dañu ne woon ku koy gagné président moo lay jox prix bi léegi nag tukkulóor yi joxe guñu seen prix léegi nag bii lii nii chinois yi la université ñoo ma defal bii diplôme d'honneur léegi lii nii du gis ngeen ko waa jaspora ñoo ma defal lii waa diaspora ñoom ñoo ma décoré médaille boobu donc léegi fi mu nekk nii gis ngeen ko nii collection bi kii pomme bi la gis nga pomme bi bu ñoree nii lay mel day xonk cur waaw fii nag ma leen fii un toit un micro jardin Agrojardin la faim vaincue la pauvreté éradiquée moo nekk bâche boobu tey waaw. mais euh, maman euh, nga nekkee fii nga xamante ni moo di rond point liberté ba léegi ndax am na ministre yi nga xamante ni ñoom lañu ñu dénk wàllu mbay meeg yooyu ndax ñi ngi def ay jéego di ñëw fii. gisuma ci kenn gisuma ci kenn wax dëgg fa yàlla fiyaara rencontre na ministre de l' agriculture bu nekk bu nekk nag fekk nañ ma fiyaara mais ku ci ne. Ah, dinañ la seet si gisaguma fi kenn daal waaye ku fiy jiitu nag dina am dina am chance xaw ma tukulóor lay doon wala joola waaye xam naa ne ku fiy jiitu dina am chance. d'accord mhm. euh, mais est-ce samay doom ñu ngi foofu nag. ma léegi màgget naa xanaa xamu leen ne màgget naa. tëdd. da tëdd moo ma war léegi waaye du ma ko mës a def xam nga lu ma ko du tax du ma ko mës a def sama wasila sama guide moo ma ne liggéeyal ba mel ni doo dee ba mu ko ci loolu laa ne jullil ba balaa ngay ma jóge fi loolu laa teye ndax xam nga lu tax ba ma demee itali am na benn màgget quatre-vingt-dix-neuf ans la am ma fekk ko muy bay quatre-vingt-dix-neuf ans moo yoroon jardin man ko wa ñaata at nga am mu mu ma ñaata nga ma jox ma ne ko ay soixante-dix mu ne ma 99 laa am xam nga loolu. Mm-hmm. Euh, lu tax docteur yi ne ngay ngay dox pour ñaq bii di génn graisse baa ngi dem sucre baa ngi dem leneen leneen mu ngi dem lépp lépp lu la naroon a feebar cumulé wu ci sa biir yaram mu ngi génn. loolu la loolu rek la. tey tey euh, mu jàppale la ci li nga xamante ni loolu ngay liggéey. état du Sénégal li ma bëgg mu jàppale ma pour ma liggéey fii. moo nekk ne xale yii nga xamante ne amuñu liggéey yaa ngi dégg am na ci ñoo xam ne amuñu métier dañu jàng nag ba këpp diplôme mais jàng aussi théorie théorie théorie pratique mooy tax ñu xam ne yow am mën nga dara il faut nga mën dara il faut nga jàng métier état bi formé formation yi mu subventionné ko xale yëpp mën a def formation ñi dëkk Dakar def ko ci seen te yi nga xam ne looloo tax ma ne un toit un micro jardin ñi nga xam ne dëkkuñu Dakar ndax nekk dëkk ba te amuñu liggéey te mbéy bi nee nañu les aléas climatiques ont changé kenn weranteetu ko que d'ici deux mille cinquante la population mondiale va quintupler bu quintupler ba occidentaux yi ñuy jox amatuñu pour jox ñu kon ñu lu ñuy devenir c'est dès maintenant que gouvernement bi ne nag xaaral ñu jox leen ñu former leen ci mbéykat mbéy mooy développer réew élevage pêche ñetti yooyu bu ñu génnee ci réew réew moomu du dem fenn ndax ku jóg rek yaa ngi xiif ti tukulóor yi yàkkamti nañu añi dégg nga ak joolaay léegi léegi nag loolu moo tax xale yi di jaay nii ci mbedd bi nii suñu leen initier woon former leen ba ñu am xam-xam dinañ mën a liggéey dara nga nekkee fii ba tey jii ndax mosuñu loo ñëw xëpp pour nga jóge fii. yàlla moo ma fi indi du dëgg yàlla rek jël. d'accord soxla woo ce euh, que soxlawoo ay hectares yoo xamante ni tey di nga am fu gën a yaatu fii bu ko defee nga gën a nekk euh, euh, nga gën a libre mën a def sa lépp foofu. xam nga fii centre de formation la et de démonstration. Mhm. du dëgg fii nii lépp li nga xamante ne bu ma amoon mille ectare sax. li ñuy def démonstration bi lépp a ngi fii yaa ngi dégg te lii mooy la culture urbaine et périurbaine nga xam ne pour pour ville rek la ndax dañuy wax ne boo amee yii nii da nga yëkkati table bi teg ci sa terrasse keneen ñëw yóbbu teg ci terrasse am loolu mooy centre de formation nga former ay groupement ñu am un espace boo xamante ne comme nii la dem dem groupé woo foofu def comme nii ma def nii ñu def ko ba dakaar yëpp daj bu ko defee ñu am dakaar boo xam ne comme son Cap Vert comme ni ñu ko sonnoon leen di yépp day vert ndax ba ma demee Ouganda ba ma gisee seen verdure dama kontaan ba xamatuma lu may def te loolu bëgg naa ko indi fii Sénégal. d'accord tey euh, nga xamante ne tey ma ne jàppale bi kay dégg nañ ma nañu ñëw fekk si ma su ñu ñëwee ba fekk si ma fii. dinaa leen wax li nga xamante ne bu ñu gisalee seen bopp comme ni nga def nii dinañu xam ne lii mooy jëmale réew kanam mbay mooy jëmale réew kanam du wax dégg nga léegi ñun fi ñu nekk nii man mag laa bëgg naa xam-xam bi ma jox ko xale yi ndax am na ñoo dëkk boo xam ne dama fa dem ñu ne ma on va prendre rendez-vous avec notre président comme ça tu vas nous faire toutes nos régions mu ne dinañ la jëlal rendez ak suñu président nga def nga toog fii defal ñu toutes no régions ma ne ko no e no le premier je pas encore été reçu par mon président le deuxième je pas encore fait toutes mes régions bopp papa Ablaye Wade moo fi ñu ne ma yow daal yaa ñàkk bopp mënoon nga def noonu dem foofu rek buñ la wonee ñu xëcc la ma ne ko kon dootuma nekk patriote li ma nar a def bitim réew ba seeni doom yi ëllëg ñu mën suñuy doom fii laa koy njëkk ci sama dëkk bi suñ ma ci fekkee xayrun suñ ma ci fekkul itam am naa daal yéene te yal na ko borom bi bi nga xamante ne mooy nangu lépp te moo mun lépp sàkk ñëpp yonent ba sàkk suñuy waajur sàkk sëriñ Tuuba yal nañu ko yàlla dégg walbati xel yi ñëpp booloo nekkoo benn yàlla daqal ñu virus bi nga xamante ne virus bii nag ah nee nañu ñu wàññi soxorante yi te jël yàlla indi suñu kanam di ko di ko ñaan guddi ak bëccëg di ko jéggalu ndax moo ñu jox ñuy noyyi moo ñu jox ñuy naan lépp daal mooma tey euh, woo Maman Africa tey euh, ngir ñëw fi nga xamante ni moo euh, moo di rond-point Liberté 6 tey bu ñu la bëggoon woo fan lañ la mën a jotee. 77 386 35 49. wala 76 493 17 34 35 tigo bi man man mii maa leen di jaajëfal ndax xam nga lu tax ndax yéen itam effort bi ngeen di def yéen a ngi dimbale gouvernement ndax tey président mu ngi fee toog yéen yéen ay dem di wone muy gis bu gisee mën na ne ah man kat lii ma gis xaaral lii ma gis kat xaaral ma xool fan la nekk ñu dem xool naka la ndax boo yéene boo amee sa dara bugg ku la ko yéenal nga sa taseeg borom ndënd nooy def ndënd ba mooy jël dang dang dang ñëpp dégg ci loolu mooy wax ji nag yéen kenn gënu leen yàlla maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér yàlla daqal leen saytaane yàlla laq leen fa yàq yeggul ndax moom rek moo ko mën nag kenn mënu ko yàlla rek moo ko mën maa la wax loolu waa kay maa leen di jaajëfal jërëjëf jërëjëf yaay Euh, jërë ngeen jëf euh, yéen ñi nga xamante ni yéen doon seetaan bi le reportage ah ba ma leen ko waxee ca tàmbali ba noonu laa leen koy waxaatee euh, nee naa leen fii lañ ñëwoon fi nga xamante ni moo di rond-point Liberté 6 daal ñëw seet si ki nga xamante ni moo di Mama Africa dégg ngeen nag lépp li nga xamante ni moom la fi waaye gis ngeen tamit lépp li nga xamante ni moom la fi bay ndax bàyyiwul ceeb bàyyiwul euh, li nga xamante ni moo di naana bàyyiwul carotte bàyyiwul nawe lépp loo soxla ba ci jën euh, ba ci li nga xamante ni moo di ay lapin wala li nga xamante ni moo di ginaar lépp Mama ak Africa am na ko fi nga xamante ni moo di ci toolam bi euh, moom nag message bi muy lancé mooy état bu Sénégal mu jàppale ko bu baax a baax ba nga xam ne dina mën a teg loxo ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew bu ko defee ñu daal di gëm bu baax a baax li nga xam ne mooy mbay mi ndax nag mbay mooy sukkali réew di ko jaajëfal bu baax baax waaye tamit di jaajëfal Ibrahima mi nga xamante ni moom laa àndaloon sama caméraman nee naa ko mag yow daaw la woon bare ñu ñëwaat xamante moo di euh, Mama Africa ñuy ñaan yàlla euh, site bi nga xamante ni moo di Khass TV yàlla teg ko mu gën a jëm ca kanam euh, ndax nag ñu ngi ñëw ak yeneen yu bees tàkk xaar leen ñu di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Dabax si suñu réalisateur di jaajëfal Ajaratu Mira Diop di jaajëfal tamit ki nga xamante ni moo di Modou si suñu chauffeur jaajëfal sama DG Cheikh Diop jaajëfal Kalidou mu ñaaw moom ah ayca nag rendez-vous laa leen di jox beneen yoon ak leneen li nga xamante ni moom leen di dëktal fii ci Khass TV a Bari laa àndaloon sama caméraman bu ñaawul saa su ne noonu laa koy waxee peace and love Ibrahima Bari